waaw mbokk internet ci Bakel TV tey le grand waaw waaw. Ah, waaw Djibi bu Sokh. waaw maa la ko wax. Djibi bu Boy Niang. waaw waaw Djibi waaw Djibi Gueye bu Eumeu ah, Sène. maa wax lii waaw Djibi Gueye bu Pikine daal. barki Serigne Bamba. bu Ginaaw Raay. waaw la wax bu Jokkoo. Ginaaw a nu ñor. li naan ragal du jéggi raay. bu uh-huh. naree jéggi ak doomu Ginaaw Raay. Uh-huh. bëggee naa leen. jaajëf grand mais lu bari. waaw maa ngi lay fay grand bi. jiw bi nan nga andee hmm. soq bi. waaw. Ah. Pikine du fa. waaw mais loolu. nan la jógee loolu. loolu nan nga loolu dañoo ñëwoon répétition rek géej. toog gars ñu mm. def géggéen géggéen géggéen génn tëgg bàkk bi quoi ma ne leen bàkk bi war nañ ko mën a wax mm-hmm. après ma ne ragal du fa dëkk mu ànd nag mm-hmm. affaire yi macha allah ñu tëgg ko mu neex Pikine gépp nag gis ci seen bopp wallaay donc euh, loolu la quoi <laughs> mais chaque jour ngeen defoon open press euh, fële mm. jumaa sëñ Mansour waaw bayal sëñ Mansour waaw bayal sëñ Mansour seen ñëw mm. Ama Baldé ñëw Boy Niang ñëw sox xam open press bi mel noonu moom dootul am yaakaar. waaw waaw waaw loolu mooy Pikine nag. Ah. loolu mooy Pikine. Mhm. waaw ba pare gars yi nanu bàyyi xel loolu. waaw benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. muy Eumeu Sène. Mhm. Boy Niang. Ama Baldé. Mhm. Sokh ba ci ñëpp benn lañu. ndax nag drapeau Pikine la ñuy yóbbu. fépp fu nu demaa. drapeau Pikine la ñuy yóbbu kon donc nanu bàyyi loolu xel. c'est la pikinité. c'est la pikinité. jaajëf grand Iba nag yow sunu mag nga. suñu xarit nga suñu lépp nga ba pare li tax ñu fonk la mooy da ngaa fonk fi nga dëkk muy ginnaaw raay donc yàlla na yàlla defal jàmm kontaan naa ci yëpp yow dina gën a yaatu waaw doon dafa am benn waaw loolu nag moom depuis mu bëree ba léegi gisanteeguñu déggante na nag. waaw mais gisanteeguñu mais nag bu ma gisanteeg moom ba toog ak moom. waaw waaw dinaa ci xam lu leer daal. bu soobee yàlla waaw mais déggante na nag mais gisantewul depuis mu bëree ba léegi. ba léegi waaw waaw mais déggante nan téléphone ñaari yoon. non xëy na daa am lu ko metti rek ndax fii ñaata mbër a fi déclaré na bàyyi naa. waaw mais après da ngay ñëwaat xëy na dafa am lu ko metti mais bu demee ba toog toogaat. Hmm. xam ne dafa am ñu ko bëgg ndax làmb comprendre nga dina hmm. ñëwaat xelal la loo koy xelal pertagul dara soo pertagul dara ci làmb xalé bu ndaw nga waaw yaa deg bala neex nak fo mu metti mhm. fi amna ñinga xamne say mag lan nek nan tay roi de arènes euma sen dañ na lu metti ci lamb avant mo nek roi de arènes dama na ba ñep faté ko donc mu ramper gëm bopam ba ci nek jël roi de arènes kon donc yow tamit amo bo ñami mhm. ci ñaari combat lu joge mu metti lol la deger daan ko mu ñew tafaatin tamit mu demé mu metti lol ñep naan du mbeur mu ñew daan Balla Gaye mu ñew daan Balla Gaye ba tey mu muy bëre ak Modou nii kon donc affaire yi balaa neex foo mu metti sox uh-huh. taxaatal jaaj yi ñëw uh-huh. dañ cee am place boo duusee mu neex uh-huh. soo bëree mu neex te am na ñu la bëgg lii yaa tax nit ñi bëgg ca kaw <laughs> waaw ñoom ñu ngi fi waaw coow li bari na mooy sànq li ma wax rek waaw coow li bari na mais nit ñi xamul ñooy wax mais ñoom xëy na dégg euh, déggoo nañ seen biir man boog li ma jàpp tey mu dee Jules ak Magu Pikine yi xëy na déggoo nañ seen biir parce que nag lépp rek Pikine la. Ama ak Pikine euh, ak ak Boy Niang. Hmm. ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi xamante ne dañuy daje fa nga xam ne kenn du fa ne. Hmm. donc la mooy seen secret. bi seen loxo de liggéey la rek liggéey la liggéey la waa ginnaaw raay bëgg nu jox nu bopp. bu nu xewlee. waaw muy génte muy ceet lu mu mënti doon ñu ne woy leen ci liggéey. donc may ànd ak nag samay groupe. donc ñu nekk. ñu nekk groupe ba nga xam ne ñi fi nekk géwél sax bëriwul am na tukkulóor am na naar am na pël mais xëy na voilà xëy na yàlla moo leen euh, nattoo aar ñu bëgg ma tamit ñëw ñu yaatal leen ndax nag ñun dañoo yaataloon bañ ciy toll waaw kon donc loolu rek la ñu nekk ay ndaw nag gëm suñu bopp groupe bi moom bari na. bari ngeen bari na ñi tëggul sax ñëpp ñuy tëgg. ñi tëggul ñëpp ñuy tëgg waaw macha allah après ah? waaw waaw waaw liggéey rek. incha allah ah. liggéey rek. yàlla na yàlla def jàmm mais dinañu est-ce que bi génne benn album. non ñi ngi ci ñi ngi ci génne nañ waaw def nañ cinq morceaux. waaw ba ci morceau bi ñu mujjee génnee barki démb rek. mais ah. ñi ngi ci mais nag yàlla baax na. waaw yàgg ci teen bi hmm. baak dina la ca fekk. loo ñuy mosal. ragal du jéggi raay bu naree jéggi raay ànd ak doomu ginnaaw raay. jërëjëf sama gars yi <laughs> jaajëf grand jaajëf